people. kon tay conviction ak défendre ki nga xamanteni moy le président Macky Sall moy yóbbu Lat Diop fofu dañ koy nangu de temps que ñuy nuyu suñu benen invité bi nga xamanteni ni fekk si nañu muy l' Cheikh Thiam bokk ci mouvement ma réew 3D ku wax lolu moy deug dëggu dogu ba nopi bokk ci benen mouvement bo xamanteni du mouvement politique ñi dippee ko C221 de dl Cheikh l'ambassadeur ñuy bayyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ngay candidat jëm ci 15e législature yi ñu investir la ci listu coalition Sénégal Kase Mersi pou tanj ki Mangele Cheikh Ndiaye. Djourin Cheikh Ndiaye bu am solo. Di nuyu suñu dafa technicien Voilà, je pense que bu am solo. ngi nuyu ñep ñi ñuy sétane ci biir réew mi ak ci bitim réew di la nuyu di rafetlu sa invitation di nuyu jëwrin Cheikh Ndiaye donc euh, kon yaakaar naa ni noonu la nuyoo nee naa leen quand c'est important sur VIP people dañuy jële ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa sell màcc ñu waxtaanee lu jëm ci réew mi ñu jëm ci ay élections législatives mm. bi nga xamante ni dañu war a tànn ay député ñu war a représenter Sénégal ci pencum ndaw réew ma ngeen gis injustice bi nga xam ne léegi tëddu nga ko ci mbirum Lat Diop jëmale ko ci nouveau régime bi ginnaaw biñ ko tëkkoo balaa ñuy egsi tey ñu jaay ko doole tëj ko alors que pencum ndaw réew mi mooy beneen pouvoir boo xamante ni tey moom mën a édifier Sénégalais yi ci seen sort tey gis campagne bi daal di tambalé ci ben violence bo xamanteni ni dégguñu kenn wax sénégalais programme bi lañu bëgg a loi bi lañu bëgg def pour soppi dund doom aadama yi lu dul xaste ay révélation ak ay accusation diw sàcc la diw dëmm la jaay nañu li jaay nañu li nak ngeen jangaté loolu muy question bo xamanteni ku nekk mën na ci def lappe waaw euh, ma ngi fekk ngeen aborder sujet bi mhm. mu nekk sujet boo xam ni war nañ ci waxtaan mhm. mais man très honnêtement Kaolack Diop daf ma bett quoi mhm parce que Lat euh, dañ ko dafa sacrifié wu ñu sacrifié ko dafa melni Lat amul ay mbokk ci réew mi. Mm-hmm. kaw la job c'est trop c'est c'est trop facile quoi au fait. Mm-hmm. xam nga ministre de la République ci ben régime bo xamni ci fin au régime bi yow ci nga nek ministre. Mm-hmm. et puis ñu am régime bu bess ñu ñëw ñu jël la sacrifié la li ci gëna graw li ci gëna graw moy dafa melni Lat amul ay mbokk ci réew mi. li ci gëna graw moy ñom dañ ko jiiñ. ni dañ ko doon ger maanaam maanaam bu fekkee maanaam dafa mel ni receleur daal ku jënd alalu sàcc mais ki sàcc jaay ko mhm. kooku moom bitim réew la nekk ñoo ko mu jël jet privé ñëw wàcc fi aéroport mhm. jël V8 ñëw def témoignage ci aéro ci ci ci ci ci ci ci place bi ñuy atte mhm. ñu jël lat sañ sànni ci kaso bi moom mu duggaat ci avion dem yoonam mais c'est extraordinaire mais lat damay laaj moom pendant limi liguey lepp jamono yu nek di liguey limu créer ci base limu mu ak lim ci am defaru ci defaru ci entourage am wala defaru ci yaramam pourquoi mu yombo nek ben poids bo xamni gaay gars yi ñëw rek patam patame ko jël yobbu et puis ma am lu may ñaawlu deug la Lat mu ngi won ci président Macky Sall jage na mais bu fa nekkee c'était grâce à euh, monsieur Amadou Ba mm-hmm. mais Amadou Ba nan lañu mëna jappé a jàppee Lat Diop quelques jours plus tard ñuy créer coalition di investir ay nit ci liste nationale bi par rapport aux élections yi la Madame, dañ ko dañ ko sacrifier si tu veux la vérité voilà donc euh, man jàngat boobu la ci am c'était trop trop trop facile jusqu'à présent hein, damay posé où la question pourquoi nar nañ ko sacrifier yakal ko àddunaam et dégg naa ñu ne état bi dinañu saisir ay biens xaw ma ndax c'est déjà fait ou pas peut-être euh, ki nekk ci plateau bi dinañu ci mën a mën pour ñu mën ci xam dara mais waruñoo yàq avenir waa ji noonu daal. jëwriñ Cheikh yaakaar naa ni yaa gën a placé pour tontu ci dégg nga laaj ba mu laaj laaj lu mu tekki ci dëkk bi ko ak base bi mu fondé ñu jël ko rek taxañ ko noonu yóbbu ko ci kaso bi est-ce que Lat deful woon toogaayam ci ginnaaw. xam nga wax naa ko ci benn télé nee naa leen Sénégal. su fekkoon dëkk boo xamante ne dëkk actuellement nii bokk fekkoon ni que li ñii fi nekk li ñu doon woote dëgg la ci ñoom. tey jii Lat Diop doon def ci ñu waroon honoré la waroon bokk. maanaam ku waroon teg honoré ko la. parce que dafa jëriñ réewam lu baree bare baree baree baree baree baree baree baree. Lat Diop dafa jëriñ réewam lu baree baree baree baree. nit la ko xamante ni engagement am ak xam-xam bi foko nat natt lako mom da ngay wax gaay yi le man administrateur civil la de classe exceptionnelle dang ko gis mu koy baamu ak ak wat mais lima la wax rek gis nga ñi fi nek ni ay nit ay nit lañ yo ni dafa am benen xar kanam bu moné ci Sénégal bo xamante bu nit ñi umplé won muy ay nit lañ ñoo xamante ne soxor nañ ñaar amuñu xam-xam ñettal bi ragaluñu yalla

ci waxi démbam ak jëfi tayam boo ko xoolee nag su bu bu ñu méngooyee nee na jàppal nit a ngoog léegi waa jii nañ ko xol ay waxi démbam ak jëfi tayam mais avant mom mo doon bañ nan boy yi buñ bu leen nangu di xéxal ki bu leen nangu di xéxal ka bu leen nangu xéxal policier bu leen lii bu leen laa mais loolu doon wax. wa mais tay yow tonto chaque euh, question cheikh bi. té question bobu sénégalais yépp mom lañu constater euh, constaté que lat tey dañ ko sacrifier moo xam Amadou Ba la moo xam ay mbokkam yi nekk Géejawaay mooy ñi ànd ak moom parce que moom moomu ngay wax bi taxaw barki dem na yëfi tappale la bi mu toogee xam ne ni que lii kat moom moo ko def daf ko rendre politique ñëpp jàpp nañu procès lat bi procès politique la mais un procès politique ça se gagne par un combat politique mais gisuñu combat politique bi nga xamante ni yéen ñi ànd ak Lat Diop mën na ngeen ko tey pour mën a taxaw jàkkaarloog ñoom moo tax tey Lat nekk sous mandat de dépôt. xam nga ñun ay nit lañ. waaw yu nite. waaw dëkk ci dëkk bi. bëgg jëriñ réew mi. waaw am na joo xamante ne duñ ci dem. non mais combat politique. waaw Ablaye Wade xam na ko Ablaye Wade nee na. un procès politique un procès politique ça par un ma wax la benn affaire ci politique. Mm-hmm. Sénégal mm-hmm. politique bi am fii Sénégal rek la am. Ah. politique bu njëkk nit ñu baax ñi. Mm-hmm. nit ñu dëggu ji nit yàlla ñoo daan def politique. suñ comprendre nga baax li ma la wax nii sacrifice bi dëgg la ñee. ñeeb tey ji boo day xool ay tomb lañ ci. mais lépp lépp lépp kii taxaw nekkoon dinaa la ko def te tey def na ko kooku mooy mooy sacrifice bu mat bi. Oh, d'accord léegi nag kii nga xamante ne nii nag moom moom moom mooy mooy lépp Amadou Ba. ak euh, président Macky Sall Amadou Ba ñun benn côté duñ ko blâmer ndax li tax duñ ko blâmer. mooy ñun amuñu woon. Ben digënté ak mom mom mhm. la ak le président Lat Diop. ñun jappalé wuñu Amadou Ba. Lat Diop bu fi Amadou Ba ba fi Amadou Ba jall mhm. ñun Nous président Macky ñun jappalé wuñu président Macky Sall lañ doon mhm. en retour tay ji bu féké ni que ku la xam Lat Diop deug deug deug sax ni mom. mu da fay da koy gënal mu ko sa manière. que nit ñukoy duggal ci ay liste qui est député qui a fait parce que le fait que nous ko ci de ci ci liste. génnul mérite après. d'accord mu député la dañ la mérite. Mm-hmm. ni nit nit ku résultat.

ñu jël la job dugal ko ci liste. Mhm. pour couvrir ko pour ñu bañ ko tëj. Mhm. li mu wax ni deug la combat bo ci dem da ci dem de façon loyale. Mhm. mais la job dafa nek un il il a été un grand commis d'État. man la je l'ai rencontré je crois il y a la veille des élections 2024 hein, c'était à New York. quand il est venu Ketchup mo ñeu bu sama place ni ma am gan gu fii ñëw dafa insister bu ñëwee mu rencontrer la. ma ko kan la mu ne duma la ko wax. après sama beneen xarit woo ma muy Badra Gajaga ni ma sama benn xarit mu ngi ñëw New York bëgg naa bu ñëwee ngeen toog lat bi mu ñëwee évidemment man la njëkk a ma dem ñu toog man ak moom ñu waxtaan lu yàgg mu ni ma bon Cheikh ma ni ko am ah, mu ni ma dama lay déglu souvent sa pertinence sa éloquence yow sa place du fii mhm. ñëwal Sénégal war ngaa mën a liggéeyal réew mi mhm. parce que war nga àdduna am nga xam-xam vraiment nek nit ku généreux man xaw ma bu baax mais daan naa ko gis ci réseau yi ci jamono xex bi bima ma Sénégal tamit bima dugonté ak ay nit def nañu ci mom ay témoignages il est très généreux lu mu am bokk na ko doomu aadama yi ba paré liggéeyal na réew mi évidemment li tax gaay jël nguur gi rek may ñu ko dara moy potentiel adversaire la bo xamni redoutable bo xamni bu nekkoon ci biti il va faire mal lolu tax gaay yi ko patam patamee dugg pour euh, pour élection législative yi mu bay ko mais jëmmi la mais il doit servir le Sénégal dafa war a dugg ci assemblée nationale bi c'était pas mu bok ci liste parce que day laxatu dede dafa waroon bok bokk ci liste parce que Lat kan mo gëna crédible Lat Diop ci ci ci parlement bi gisumako bu fekkee dugg woon ci ci ci ci ci listu Amadou Ba mais dafa waroon créer listu boppam même bu nekké ci biir kasso bi sax ay nit waroon nañ ko mëna porter xamni li lii listu Lat Diop la ñu def ko tête de liste parce que ken privé wu ko ay droit pour mu pour mo wara a nekk député man ci sens bobu lay waxé mm. motax tax ma ana ay mbokkam ana ay nit ña mais kaw Lat Diop dafa yomb sëñ

mais ils n'ont pas état d'âme hein. c'est des ouvriers du satan c'est des travailleurs du diable oui c'est des travailleurs du diable ces gens là moi je te dis ils sont là pour écraser les gens affaire d'âme d'état ces gens là mais à l'occurrence ki nga premier ministre le premier ministre mu ngi ci objectif am mu ngi ciy dem ñun ñi nga xam ne am nañu malchance dund ci yeneen i réew gis xeetu doomu aadama bu mel noonu amoon projet dëgmal ci nit ñi di dute mu nekk ci ba atteindre objectif gis nañ la mu jur ñun xam nañ ko ay sekkal la yoo xam ne mu ngi joxe waa fi ngeen nekk nekku fa kum ci mën a jàpp tër ren di poil la lay def da lekk parce que moom bukki la jàppe boppam jàppe sénégalais yi ay béy loolu mënatul continuer il faut ñu jóg comme un yi ñu jóg ñu faire face ñu xeex loolaa sinon ñoom ñëpp la ñuy sacrifier léegi am na ñoo xam ne gouverner fii pendant 12 gérer réew mi li fi def mo ne wàng ñu gis ko ñun ñu wër adduna bi gis ni ci biir continent bi ñu nekk réewu nit ku ñuul li ñu fi def ñoom seen régime ci 40 ans yi gisuma benn régime bu ko réussir def ci biir Afrique farawuma ak ñoom de Macky Sall bugguma ko woon gis ci photo mais ay preuve concret laay wax ndax li ma gis ci Afrique gis ko Sénégal diggante fi mu jëlee Sénégal ci 2012 yóbbu ko fa 2024 c'est du jamais vu ñi fi nekk nii boo leen bàyyi woon fii ak 20 ans duñu ñu mën a peinture benn chantier bu fi Macky Sall tabax ñooñu ñooy ñoo jàpp ay nit ñoo xam ne liggéey nañ ci réew mi di leen jàpp benn waay di leen jàpp di leen tëj ci kaso bi ñuy toog mel ne ay golo noonu bu ñu ko defee bu leen. bu ñu ko defee ñoom nekk su ma déggee sax. Mhm. ñu naan benn waay. Mhm. Euh, léeg-léeg daf may xaw a kii tuuti ndax xam nga lu tax. Mhm. benn waa jooju noonu au temps bi mu fiy nekk nekk opposant xeex mayu ko dara. wax jee fi ne rek xeexul ba am dara de. dëgg la bi ñu koy tëj dara dafa xew. pourtant dara xewul booy lu ñu fi deful. booy troisième mandat boo xoolee xeex boobu moo ko gënoon métti mais problème troisième mandat bi mu jeexee jeex na. mom bim mu ñu war ko japp tej ko biñ ko japp tej dara xewul réew mi réew mi réew mi nekkul ni que ay xeex ak toj ak barang mbarang mbarang mooy defar dëkk bi dëkk bi waji dafa ñëw bett ñëpp ya nga dégg moy fex na ba tambali bi victimisé victimisé wu na ba dugg ci xol yenn gaay ba pare léegi leneen li ci des moy mu ñëw tek benn sal boulot wan nit ñi bopam ne man ni la mel manam nax nit ñi nakh nax bobu mu nax nit ñi nak nekkul ni après ñun dañuy ñëw parce que nekkutul mom goudi yi ñu toll ni état la yor ban état da kan ñan mooy xeex ak kan mooy xeex ak moom xeex na ak état. ah moom xeex na ak état lu mu ci jëlee. xeex na ak état la ci jëlee. nekk premier ministre.